il se retrouve avec 260 candidatures, pour la plupart inconnues même du, du, du commun des Sénégalais. 93 qui passent le premier filtre et maintenant 20 qui sont admis à participer. Mais 20 parmi lesquels ne figure pas le leader de l'opposition sénégalaise. Comment peut-on cautionner des élections sans le leader de l'opposition? Nous apporterons certainement cette réponse-là parce que nous sommes convaincus que le leader de l'opposition est en prison, mais les Sénégalais, millions de Sénégalais qui ont leurs quatre électeurs prêts à voter, sont eux dans Et ces votes-là sont bien réels et nous ferons le maximum pour que ces votes lui et la personne qu'il décidera. Mais au-delà de cela, de quoi il s'agit aujourd'hui Il s'agit aujourd'hui 22 janvier 2024 l'anniversaire jour pour jour du 22 janvier 2023, le jour du pacte de Keur Massar, de répondre à cette question. Sommes-nous prêts? Sommes-nous à sauver ce projet? Sommes-nous prêts à sauver ce pays? Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout de ce combat contre ce régime? Sommes-nous prêts à aller aux élections présidentielles, mais sommes-nous prêts à sécuriser nos votes? Parce que nous avons affaire à des bandes de voleurs, à une mafia organisée, à des gens qui sont prêts à tout. Ils ont tué nos frères, ils ont emprisonné nos sœurs, Ils ont exilié nos amis. Et aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul choix, c'est de gagner ces élections pour réparer toutes ces injustices et pour libérer le Sénégal. Mais pour ça, il faut que nous soyons prêts. Chacun de nous ne doit pas juste dire je vais voter et rentrer chez moi. Il faut que nous soyons prêts à défendre notre vote, à pays. Sinon, sachons que ce sera peine perdue parce que eux n'hésiteront pas à refaire le même procédé pour voler ces élections comme à leur, à leur jërëjëf soxna a <clears throat> ñu ngi lay gërëm ci sa intervention bi ñu ñaan euh, capitaine Touré mu ñëw xam naa mun a cité nga ñoo xam ne complice lañu waaye mënoon nga ci wax également FDS yi ndaxte ci mbir mi saf nañ ci sap te du seen cër hmm. capitaine ce sont tes anciens collègues <laughs> des anciens collègues. Vous avez la parole. C'est toujours mes collègues. Hein. C'est toujours mes collègues. Oui. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Ah, mbokki Sénégal maa ngi leen di di leen sant ah, surtout de di di gërëm président Diante pour la confiance parce que je considère que la personne la mieux indiquée peut-être pour aborder ce sujet ce serait peut-être euh, l'honorable député Aïb Dafé wala Ngagne Demba Touré qui malheureusement est exilé qui est mieux placé pour aborder cette question parce que ñoom ñoo fi nekkoon depuis toujours et ñoom ñoo porté combat bi depuis toujours vraiment donc c'est pour wax leen rek damay gërëm assistance bi ci confiance bi Euh, aussi, euh, analyse, bi n'est pas l'analyse d'un spécialiste. Moi, je suis juriste, <laughs> mais je suis Donc, euh, pour ngeen comprendre s'il y a des incohérences. Je voulais juste soulever quelques incohérences par rapport a cette décision du Conseil constitutionnel. boo leen xoolee euh, première liste rejet. Et le président Ousmane Sonko dafa bokk si ñu ñu njëkk rejeté lu tax ñu ne parce que moom dossier am matul lu tax matul parce que dafa amul quittance euh, caisse de dépôt et de consignation te ñun ñëpp gis nañu dans quelles conditions la ko amul et même juge yi ñoo rendraat encore une autre liste beneen euh, beneen décision de rejet bu ñu defee recours ba pare ñu wax ne que effectivement que le fait que le président Ousmane Sonko amul quittance du fautam fautu administration bi la donc son dossier est complet même mêmes juges alors que ñoom waxoon nañ ne au début que ils avaient examiné le dossier au fond c'est-à-dire dans le fond c'est-à-dire xooloon nañu dossier bi yëpp donc ñoom bu ñuy ñee xool au début gisuñu loolu donc il fa il a fallu que ñu def recours ba pare boobu la ñu dem gis donc c'est c'est extrêmement grave en fait lu mel ni candidature et élection présidentielle nga jël dossier et nga traité que de manière aussi légère ah, beneen aspect bi. boo xoolee bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu en fait quand ils ont ils ont rejeté le dossier parce que le dossier n'est pas complet ñu ñëwaat beneen aspect ñu ne léegi que malgré que le dossier soit complet léegi le président Ousmane ko ba léegi mënul nekk candidat lu tax parce que ñoom jàpp nañ ne Ousmane Sonko dañu ko condamné te si condamnation boobu ñoom dañoo wax ne que Cour suprême moo leen transmettre dossier bi est-ce que vous avez compris donc lii day wane ne que ñun ñëpp lu ñu doon xalaat depuis toujours dëgg la boo xoolee man mii di wax ak yéen actuellement man j'ai un procès en diffamation depuis le mois de mars passé ba léegi mënu ma am une seule décision même en première instance donc ñu accélérer un dossier en une année ñu jeexal ko ba pare par je ne sais pas hasard la wala conseil constitutionnel ñu dem la même personne ñu ne lii moo tax ñu valider te ñu ne conseil ñu ne cour suprême si boppam. moo leen yónni dossier euh, euh, euh, dossier bi te da ngay xam ne décision boobu mais bu bu ñu waxee ne am na benn décision bu ko condamné génnee ko si si si si basé ko si article nee nañ article trente waa L trente du code électoral lañ ko basé te boo xoolee article L trente bi. L cent trente oui L cent trente. non L trente. L trente L trente. L trente waxul ne il inéligible article L30 day wax ne que doit pas figurer sur les listes électives te boo figuré wul si liste bi loolu pour loolu procédure la laajte il faut mu am une procédure administrative boo xam ne dañu fa war a jaar ñu notifier ko bu buggee mu attaquer décision bi mais en l'espèce on ne lui a permis parce que le délai était réduit ba pare conseil constitutionnel dafa dem ñoom ñuy autosaisir directement c'est-à-dire ñoom débat yi ñuy def si télé mooy partisan Macky Sall yi lu ñuy wax si ñoom en fait wax sa xalaat lañu def dans une décision du conseil constitutionnel te loolu c'est extrêmement grave xam nga genre décision yi pour euh, mag ñi amul problème parce que ñoom pare nañ man tout le temps damay wax sénégalais yi nañuy raisonner en termes d'avenir man bu am 30 ans aujourd'hui man dinaa dund ba peut-être que sama doom mu mës a nekk candidat aux élections présidentielles su boobaa mun nañu sukkandiku si lu mel nii ñu génnee ko si ay liste sénégalais wu bu ne noonu la war a xalaatee moo tax damay woo sénégalais yi ma ne leen eh, il faut vous préparer xam nga euh, man j'étais gendarme et je ne suis pas un fouteur de trouble mais gis nga am na fu mbir di toll il faut se préparer gis nga lii c'est un problème de génération c'est un problème d'avenir pour ñu régler ko il faut que ñu pare gis nga lu mu leen jaral dañu ko war a jaral moi je considère bu fekkee ñoom gagné nañu élection yi gagné nañu ko y' a pas de souci moi je suis démocrate mais il faut que les sénégalais se préparent à sécuriser leur sécurité c' que ñoom ñu taxaw bu leen jaralee dee ñu dee y' souci bu jaralee kaso ñu dem kaso dëkk bi ñun ñoom ñoo ko moom dëkk bi du pour benn nit voilà ça je vous le dis te loolu eh, bu fekkee ne jaralul sénégalais xam nga yàlla nee na dëkk bu ne façon dirigeant bu mu mérité la koy jox bu fekkee ne ñun nangu nañu ne. que nit ñi jaay ñu doole euh, teg ñu ci coono injustice depuis des années ñu nangu ko y' a mun nañ ko nangu man j'ai une capacité de résilience extraordinaire mais nag damay woo sénégalais yi wax leen ne il faut vous préparer il faut vous préparer je ne demande pas à ce que ñu confisquer élection yi wala ñu imposer leen suñu volonté mais il faut vous préparer si quelque veut vous imposer une volonté vous devez vous préparer à protéger la justice et le droit parce que tey bu fekkee boo gisee ni man ak ni ma toll nii aw ma doole may dox ci mbedd bi kenn dóoruma c'est parce que y a un y a loi y un règlement bu fekkee ni dem nañu ba loolu respecté wuñu ko amatul fii wax ki républicain la ki lii la mais on est obligé parce que lu ñu yoon may ak yàlla loolu la ñu def doxee voilà moi je pense que c'est c'est important que ma préciser loolu euh, maa ngi jégalu xaw naa gudd tuuti Merci, capitaine. Merci, capitaine. Je crois que les... Merci pour les éclairages. Euh, nous appelons euh, l'allié Massor Il faut pas lui dire maître, c'est